boo demee ci Fapal alif laam ndax alquran day yàlla ko composé ay arab yu mel nii laaj nga nit ñi ngir wan leen ni bu ñu ko defar xamal ci benn saar di ngeen di alquran bi mel di ngeen benn aaya aaya bi
kon yàlla daf koy wax ay tànke yi naan nu mu la di lancer message boo xam ne ñëpp lay woo ku mën leen di am bàtt bi waaye ba te noppee muy lan ko xam ci ay yoonu ko mooy yàlla subhanahu wa taala moo xam lam ca nopp subhanahu wa taala te loola mooy li gën a dëgër jeneen wax juñ ca mën a wax nag jooja moom mënees naa dégg nit ñi di ko wax waaye doy lool loolu ndax loolu mooy la saxaabatul kiraam doon wax sunu borom mu ni taasiin tilka ñaari arab yi nga xam ni ci xurufu abajala yi la bokk di vingt-huit lettres fukk ak juróom-ñett ñaar fukk ak juróom-ñetti lettres nga xam ni ci la arab composé wu te ëppalee ko keneen ku dut moom nag ndax arab am na moo yoo xam ni benn ci làkki àddina bi amul mbaa bu ko bëggoon a am xaw mu jaxase doo ko am suñu borom ni xarab yu nu dogat yi wala nii ñu koy benn bennalee tilka loolu ci la composé ba nekk ayatul qur'ani aaya yi téere bi waaye wa kitaabin mu nekkub téere boo xam ni mubiinin bu leer la bu bir bi maanaam suñu borom daf nuy leeralal ni ci arab yu dogat dogat yi ci la yàlla composé alquran ji kon lii wane du yëfi nit yëfi yàlla arab yaa ngi fii nit ñaa ngi fii te mënu ñoo def lu ni mel kon moo ne woon du yëfi nit yëfi yàlla waaye nag téere la boo xam ni sunu borom mu ni kitaabin mubiin téere bu leer la waaye téere bu bari ay njariñ la téere bu bari ay jàngal la mu alquran yii aaya tafsir ko day tax xolu jullit gën a taqaat ci alquran gën a fonkaat alquran gën koo bëggaat sunu borom mu ni hudan alquran ji njub la wa busra mbégte la ak leeral ak luy bijjik texe lil muminina ñeel ñi gëm yàlla allahu akbar hudan wa busra lil muminin inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran ji sunu borom ni dafay gindee jëme ci li gën a jub li gën a baax yoon mu nit di xàll di ko jaar wa ko alquran jaar loo ko gën bal sax moom rek mooy bu baax sax nag xam bañ daan bu gën a bu gënut kon hutal alquran ji njub la kon mbokk yi jub li ñuy daan diw dafa jub ku bëgg a jub faw nga takkoog alquran di ko jàng di ko settantal di ko jëfe wa bushran mbégte la ndax alquran dafa fees ak ay bishaaraat dafay tax nit ki du gaaw a découragé dafay tax yaakaaram dafay gën a dolleeku dafay tax xolam di gën a takk ci xemem la yàlla yore ci ay xéwal yu muy bégalee ñu gëm yàlla kon njub la wa busra day indi bisaara mbégte la lil mu'minina ñeen ñi gëm yàlla kon ndekki ki gëm yàlla ci boppam alquran da koy gindi da koy jubbanti waaye jàng alquran da koy bégal da koy gindi da koy bégal maa xam ngeen nit dana yegg ci defar xol foo xam ni wallahi bu meroon buñ ko jàngalee alquran mer mi dañ loolu day am borom xam-xam yi wax ci wàllu xol doomu aadama te gën caa siiw al allaama ibn al qayim saaxib al kutub al qayima buy wax relation yi am ci diggante xol ak alquran day wax yi nit mën naa bon xol bon xol xam nga lu ñu tuddee bon xol yow ni nga bonee xol mu faju ba wér ba ku ko xamoon daaw jéeg bokkut ak kim xam ren te benn comprimé di ko naan lu dul ay aayaat lay lay lay lay lay jëfandikoo na xam alquran ne borom bi subhanahu wa taala mu ne qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa kon dëppoon ak aaya ji hudan wa shifa yàlla nee na waxal ñi gëm yàlla ne alquran ji hudan njub la wa shifa ak saafara saafaray jàngoree xol ak jàngoree jëmm ñeel ñi nga xamante ni ñoo ñi gëm yàlla gis nga wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin que la shakka shifa ab banqaas la min arrahma faju ba wér am kàttan ak wér loolu banqaas la ci yërmande ndax yërëmee tax loolu di am sunu borom di ko def kon de alquran ci boppam nit ki koy jonjool di ko jàng di ko setantal di xam lan la ci yàlla namm di ko jéem a jëfee dama ne loolu mën naa beete tension nit ki mën naa dindi naqari xol mën naa dindi bonu xol mën naa dindi gaaw a mer te xam ngeen ni defaru xol ku ko defaru defaru àllaaxira ñëw na ndax yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim xol boobu nga xam ne dafa ànd ak defaru defaru bu wér kooku mooy kii taxe yàlla sunu borom defal na ko su boobaa bu ñu dajeeg sunu borom mu ni ñooñu gëm yàlla nga xam ne alquran ji day nekk hudan nekk shifa ñeel leen mooy gaañig ni jugal yuqimuuna sola dañuy jooxe julli gis ngeen julli baatab julli ci alquran mbokk yi min al jinnati wan naas boo seetloo baatab iqaama salaa la suñu borom di jëfandikoo te salaa mooy salaa iqaamatu salaa gayru salaa loolu lu am solo la nit ki xam ko iqaamatu salaa gayru salaa taxawal julli bokkut ak julli julli mooy ñun li ñuy def julli julli nii rek mel ni daal affaire bi daal benn yen bu diis la bu la yàlla yen boo xam ne yenu far force la neex yenu naqari yenu nga yenu ko di futtaar la ka ciipatu rek mel ni neexu la déedéet iqaamatu salaa day fekk ni maanaam xéewal la bu yàlla teg ci sa kaw muy leeral sa dënn leeral sa xol yokk sa ngëm defar sa àddina defar sa àllaaxira kon kay dalaa war a neex moo tax iqaama mooy taxawal julli taxawal gi min xaytu lictiqaad fas lu baax balaa ngaa julli ah min xaytu tahaara min xaytu arkaan min xaytu alxusuur wa tumanina dal gi ngay àndal teewlu gi concentré wu gi yëg gi yàlla xam ne boo ne allahu akbar gis nga nit ni mu def mooy fallax naa leneen lu dut yàlla fële dem leen fële xaar ba ma pare allahu akbar léegi nit ki fallax na mbooleem loo xam ne moo nekkoon yitte àddinaam allahu yàlla akbar muy ki gën a mag bi lépp moo tax ma fallax lépp est-ce que jamono bi nit kiy wax mi ngi teewlu loolu gis nga loolu bu amee rek iqamatu salaa ñëw na parce que buntul xusuu wa tumanina wal xuduu lillahi rabbil alamin tijjeeku na moo tax da ngay gis jullikat yi dañuy julli ba sonn julli gi du leen jariñ dara parce que lam yuqimu salaa taxawuñ julli assalaa tanha an il fahshaa wal munkar mboolem jàngoro ju doomu aadama am julli da koy faj julli da koy faj maa xam ngeen ni julli julli sax day faj yaram yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dee leen julli guddi parce que mooy saafara jaami yàlla yu njëkk ya day waral yàlla kontaan te jeexintalu xadis ba daf ni day dàq ay jàngoro ci yaram doomu aadama xadisul Cheikh Nasrul Albani mu ne xadis la bu wér kon aji tawat ji ci boppam na yëg ni am na comprimé bu ñuy naan waxtu guddi ci lëndëm ka ruus mooy julli kon yuqimuuna salaat dañuy taxawal julli fexe teewlu fexe bàyyi sa xel ci li ngay def matal rukoo ya matal sujóot ya ànd ak dal ànd ak teewlu bañ a yàkkamti bañ a yàkkamti li la tax yàkkamti day tax da ngay dee bàyyi ko fi amaan na pare dem ci boutique bi bara dem ci atelier ba bara dem ci wala nit ci di xalaat ay mbiri àddinaam sama col gi sama projet bi sama kayit yi sama diplôme yi sama gis nga yooyu yëpp da ngay dee bàyyi ko fi amma hadihi sola booy dem da nga koy yóbbaale moo tax abdullah ibni omar doon wax ni bu doon wir na ma ni yàlla nangul na ma génn julli bu ñeema kaay dee ñeme naa ñu ni ko ha mu ni waawaaw innama yataqabbal allahu min almuttaqin parce que yàlla du nangul ku ragal yàlla kon génn julli ku ko yàlla nangul bokk nga ci ñi ko ragal yàlla suñu borom defal kon alladina yuqimuna alsola mooy ñuy taxawal julli wa yuttuuna zaka ñu joxe azaka wa hum ñoom bil axira ci àllaaxira kat hum yuqinuuna mooy gëm nañ àllaaxira gëm àllaaxira mbokk yi alif laam miim daalika al kitaab gis nga mbir mi njëkk rek la mooy problème àllaaxira te bu ngeen defee seetlu ànd ak man jullee ngi fi woor a ngi fi lépp lépp affaire yaa ngi fi waaye balaa ñuy détaillé benn suñu borom dafa njëkk a dem ci bit ba fan jëm ba noppi mooy àllaaxira ji gis nga julli geeg woor geeg yooyu yëpp gëm gi àllaaxira su amut yii du mën a baax parce que nit ñi li tax mën a baaxal yi mooy gëm ni yii dañ ko ciy réglé ëllëg moo tax suñu borom teel a réglé gëm gëmu àllaaxira ba doog a dellu si ci affaire yi ci des wa hum bil axirati hum yuuxinuun mooy dañuy si gëm gëm àllaaxira gëm àllaaxira mooy gëm ni bis day ñëw boo xam ni saa cër yëpp day bañ bët yi ni kàdd kàddaaral yaram bi ni nemm ni ner nga ni bàpp bàppaaral ci suuf tëdd lu yëngatu dañ koo yëngal mënatoo dara bët yi dootul wàccati xef yi dootul fekki moromalatu dañ koo wàcce li nga amoon lépp ñàkk nga ko jëkkër ja tey nga teqali koog moom jabar ja tey nga teqali koog moom kër gi tey nga génn ko doo fanaan ngir li matoo suuraal doo ci lekk ñu jàppoo la yóbbu la ba ci bàmmeel ni la fa dal la suul wa man maata faqad qaamat qiyaamatu ku faatu moom rek yow moom sa àllaaxira yow foofu la tàmbalee àllaaxira ji ñuy wax nag mooy ju mag ja waaye yow mi faatu moom sa bés foofu la tàmbalee moom foofu mooy sa bés yow nga gëm ni bis dana ñëw ci bis yi ñu jàpp ma def ma nii nga xam ne daa yërëmtalu lool wallahi xar moo yër ci kër gi xar moo yar ci kër gi miin ko fas woo yar ci kër gi miin ko mu dee tax nga def ko ni yërëmtalu na waxuma la ak nit ngay xalaat loolu man kese yàlla képp kenn duñu fekkee nga yootu sa julli yi julli yi ni bu ma laal de fekk julli yi moom da nga doon këpp këppal di dem rek nga yootu woor yi woor yi ni yow wooroo woon de da ngaa yendoo xiif ak mar rek waaye jëw nga kii seetaan nga télé li doo nga def nga ay affaire yu caaxaan caaxaan yi lu bon li nga doon xool te yant yàlla bi newoon na yooyu kum terewut ak sa koor jërul ngay woor di xañ sa bopp lekk gi parce que da ngay sonal sa bopp jaamu yàlla boo yootu rek muy ba nga laal ma rek fekk defoo woon li ñu tuddee iqamatu salaa muy taxawal julli kon gëm alaxira day waral nit ki léeg-léeg mu am roq sum dugg wéet ak boppam nafaraat dund gi man ndax lii jaadu na lii defe nga ne bëgg naa cee dee nga ne déedéet mu ne kon baaxul al ismu ma xaaka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi nnaas li nga bañ nit ñi gis ko baaxut waaye loo bëggul dee ca tamit dee fekk la ca bu ca nekk sunu borom ne inna alladina gaa ñi nga xam ni ñoom laa yuminuuna bil axira gëmuñ alaxira ñàkk gëm alaxira nag ñaari façon la am na koo xam ne ñàkk gëmuk alaxiram saraxatan day wax ni affaire alaxira mu ay fóola rek dee dekk deewaat dekk deewaat dekk mooy li suñu mbokk séeréer yi gëm boo demee ba ci àll ba am na xeeti séeréer yoo xam ne dañoo gëm ni in hiya illa xayaatuna dunya namuutu wa naxya namuutu wa naxya da ngay yeewu suba rek dégg ñu tëgg benn ndënd daw si leen maam diw dekkiwaat na ñu ñëw xool benn liir benn meer màgget bu ne ci koñ bi moo naan yéen est ce que xam ngeen bàyyi diw ma faatu woon 1948 ñu ne déedéet ñu ni moog moog liir bi ñoo nuroo kon moo dekkiwaat nii kon ñooñu aqida bi ñu am mooy da ngay dee toogaat ay at dekkiwaat toogaat ay at dekkiwaat toogaat ay at dekkiwaat affaire bi def noonu rek ba affaire yi jeex am na koo xam ni waxul ni gëmuma allaaxira waaye ay jëfam ku gëmul allaaxira la xam ngeen ni ku ñi da ngay def mag nga dem ca tefes nga nekk foofu di football di football jàngoo benn kay ba pare bëgg am bat wax dëgg yàlla yaa ngi naax sa bopp nag kon ki nga xamante ni moom defut lu jëm alaxira kooku gëmut alaxira moo tax sunu borom mu ni wa man arada al axira wa saa laha saayaha wa huwa mumin ki gëm alaxira dox jéego yu jëm alaxira ba pare nekk ku gëm yàlla aha gis nga de ku gëm alaxira di dox dox yu jëm alaxira ba pare nekk ku gëm yàlla gis nga koo xamante ni àddina la gëm nag sunu baramu ni ma jox ko ci àddina lam lam bëgg rek noo fi ilayhi ma amalahu sunu baramu ni gaa yi gëmul alaxira zayyanna lahum dinañ leen dañ leen di taaralal amalahum seeni jëf taar ko lool ko rafet gis nga sunu borom ko kéemtaan la sunu borom bu doon ñun ñooy jëfandikoo sunuy xel dañ naan yàlla daya war a jël ku ku gëm yàlla defal ko lépp léppam baax du sonn du xiif du mar du nangam ndax mooy liggéeyal ajana yéefar nag yàlla xañ ko lépp suñu borom mu ne déedéet du ma ko defee noonu de yàlla yoxte dunya man yuhibbu wa man laa yuhibbu addina moom yàlla dana ko jox ku mbëgg ak ku mbëggut benn waay ngay gis boo xam ni yéefar xullas la yàlla jox ko ci ay moyen addina ki jumtukaay ki alal loo xam ni ab jullit rekk ca jekk ndax ni'mal maalu saalix fi yadi rajul saalix alal ju baax moom alal ju bari moom balaa baax rek ci loxol waa ju baax la war a tege comme ni ko yonti waxee sallallahu alayhi wasallam gis nga ñooñu yàlla day defal seen addina oto yi gën a rafet ci addina bi ñoo koy war garab yi gën a njool ñoo cay dëkk suuteere yi gën a xóot ñoo cay dëkk compte banque addina bi banque mondiale ñoom ñoo koy moom waaye yooyu jërul ñee ndax loo xamante ni booy dee benn saak bu ndaw soog doo ko ci yóbbaale kooku jërul moom jërul saxa moom la jërul woon saxa moom suñu borom nag taara leen seen addina ah yow koo xam ni sa addina def da ngay dégg ko naa ah man kay xam nga ni nii ma mel comme la xaaroon doon wax inna li indahu lal xusna ah ki defar sama fii kay xam nga defar sama fële jaaxalu ko loolu la xaaroon doon wax am na ñoo xam ne loolu lañ gëm parce que li tax yàlla tànn leen defal leen seeni bien nii mooy dinañ baax li ëllëg fekk mbir mi du noonu de yàlla mën na laa jox alal ba nga jeexal ba nga doyal fekk da laa bëgg a mbugal fala tu'jibka amwaluhum wa awlaaduhum innama yuridu llahu li yu'azzibakum biha fi dunya ci surtout tawba yàlla mu ne alal ju bari jigéen seen gars yi di ko saax saaxee ba bari nekk yéefar parce que ndeysaan sama sama classe yi xale yi koo wax rek mu ne Europe Italie Danemark Amérique ngir lan bëgg tibb ci xaalis ba ñëw xaalis boo xamante ni mën nga kaa tibb ba noppi ndeysaan boo ñëwee sax doo ko fekkee nga dee fax mbaa doo ko jariñoo suñu borom ne alal ju bari ci mu la yéem ba nga fàq jëm ca de am na ñu ko yàlla jox ñoo xam ne innama yuridu llahu li yu'azzibakum biha fi dunya yàlla daf leen koo jox pour mu nekk moyen mu mën a këpp ci seen kaw mbugal allahu akbar moo tax lu raglu la am alal neex na lool waaye maa xam ngeen ci kan la neex am alal neexul ci ki am alal wallahi alal neexul ci ko am alal loolu xaw ma xam xanaa nag li may wax nag lu kéemaane la nag su ma nee alal neexul ci ko am alal ñi amul alal dañuy jaaxle fekk li tax ngeen di jaaxle mooy ku amul alal la alal di neex ci moom parce que doomu aadama li mu bëgg te amagu ko loolu mooy neex waaye gis nga ki dem ba am ko gis nga fi mu nekk ne kenn ku ci nekk ci ñun na xool lan mooy li gën a rëy li nekkoon say forage sa kanam fekk tey jot nga ci fi ne mi ngi la commencé soox nga yóotu beneen ku nekk na wax kooku benn la beneen bi ci des mooy gis nga alal ci boppam doomu aadama ni ko yàlla mooñee pour dundam mën a simple mën a neex mooy xiif ak mar dañoo war di daje sonn noflaay di daje jaaxle ak génn ci jaaxle ka di war a daje gis nga yooyu su amee li ñuy tuddee waxatee mooy équilibre day am waaye doomu aadama bu dundee ci naqar kese kese dundam du baax waaye bu dundee ci bànneexu kese dundam du baax su ko defee nit ki day dem ba mu yàgg léegi boo ko daggaleew saaga mu jël pistolet pistolet boppam parce que pourquoi nga may saaga ndax mënu koo digérer parce que xamul moom dafa jàpp ni àgg na ci dayoo koo xam ne kenn waru koo saaga gis nga boo ko fekkoon tey muy lekk nga pël doolam loolu mën na caa mel jóge jóge étage ba xaru gis nga alal léeg-léeg boo ko amee boobu daf lay dox loo te nag kaay ma xamal la ñaar gis nga ki am alal lim sañ ki am alal sañu ko de gis naa sama kalaas ki saa gars yi léeg-léeg guddi dañuy ñëw fii jaaxaan bii lal seeni basang ci feex mi da ngeen yaakaar ni fi ne yenn borom alal ñeme ñeme wuñ ko de parce que da ngay toll koo xam ni xuux joo dégg la da ngay defee yow yaa war a dee bu ko defee da ngay warale kër gi yëpp ay ay giri ut garde corps ut nangam menn mbokk mooy nit li waa joo xam ni subhanallah bala ngay dugg ci këram ah dañuy ñëw visite la fii Sénégal gi laa wax waxuma Europe la fii Sénégal ki ma ko nit li fii la nekk ci mbokk yi dafay newul tey mu ne dañuy ñëw visite la xool la yaay kan kooy seet woo kooka mu ne na ñëw yegg ab policier gunge la ba nga dem toog ak moom mu doog a tourné billahi neexut wallahi laadim loolu neexut neexut déedéet lu lu maanaam lu neex lu neex ci boppam nit ñi bu ko séenee sax da koy xam moo tax yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne ñi nga xam ne gëmuñu àllaaxira zayyarna lahum a'malahum yàlla moo leen taaral seeni mbir taal ba mu rafet lool affaire yi yaa ngi baax luñ bëgg am ko waaye nag loo bëgg am ko àjjanaa ma ca doy man loo bëgg daal am ko àjjanaa ma ca doy bu dee àddina moom mees sunu borom ni foofu mu yaa amahoon moo tax ñuy kandi kandi rek di këmax këmax yi dem rek fahum yaamahoon mooy ñuy kanni kanni rek di këmax këmax yi dem rek xam nga kuy këmax këmax yi mooy koo xamante ni mën naa ñëw mbëkk poto bi parce que du seet du du xool moom day jàpp ni daal dund gi nii rek la jàpp sa bopp bi dërëj ko ba mu ba mu rastawu ah takkum jabar moom nit ku ñuul ki xeet na la ci te tubaab ya ngay takkee ji ah daamar yi ñuy war moom yu waya waya yi xeem nga ko allahu akbar ah yàlla day mooy may alal te am na fu nit di toll du nekk yàq ci moom waaye mbokk yi oto boo xam ni cinquante litres mooy tax mu nangoo tàkk loolu lu ko sénégalais du doyee man de xaw ma man de li ma gëm te fas ko te wallahi ushidu allah rabbal arshil azim bu ma ko amoon du ma ko jënd oto boo xam ni cinquante litres mooy tax mu tàkk loolu lu ko lu ko lu ko lu ko sénégalais di doyee dëgg la mën ngaa dem ci yeneen réew yu ko yoree parce que tamit am na loo xam ni boo koy wax doo ko généraliser mi ngi mel ni ci buntu can damay wax mbokk yi boo ñëwee fii mën nañ ñi deux cent mille seer na can ci misaal xam naa loolu du neex jigéen ñi ndax bëgg nañ lu ko fii ci Sénégal waaye boo demoon tey fu mel ni Kuwait nga xam ni ñoom dañoo bari pétrole bari alal nga dem fu mel ni Saoud fu mel ni Judda fu mel ni Nangam nga xam ne nit mën naa yëkkati trois millions jox ko jigéen can mel ni ku ko jox cent cinquante mille kooka loolu su fekkee fañ dugal alal ja yàq dug arab loolu ci tan dagan na ndax xintoor moom bari na lool te it mën nañ ko bañ a yéem mën naa bañ a yées waaye fii nga xam ni am na ñoo xam ni ci seen kaw lan la ñuy toggee seen añ nga xam leen parce que yaa ngi leen di gis télé xam seen adresse am na ñoo xam ni tey jii bu ñu añee duñu reer ndax ay étranger lañ ci dëkk bi am na ñoo xam ne fi ne ñu ngi biir kaso di ay jaami yàlla yu baax ay bora leen tëj ay bora leen tëj am na ñoo xam ne ñu ngi dund ci ay jafe-jafe feebar yoo xam ne opération dong la laaj ñu dala laaj téeméeri junneeg ñaar fukk te yow fukki junneeg juróom mënoo koo dajale ci at mi ba mu yembandoo ñooñu koy bu fekkee da nga am lenn looy def kay dimbale leen ko gis nga yenn xeeti taar taar yu ëpp yi mbokk yi jullit moomu ko imam ahmed bu toogaan jàngale ba dugg ci biir kër gi doom ji danaa ko waa bàyyi yow lii ñu la jox lu tax nga ne doo ko sol yére yi lu tax nga ne doo ko sol xaar yow bi ngay jàngale yaa wax lii dagan na mu ne waa dagan na kay waaye nag jullit bu bëgg a yar boom du lépp lu ñu la dagan na nga jël ko ñaareel mooy buntub dagan na moom ku ko topp bu yàggee mu sa mu jot mu sëpp la rëppeel la nga julloon kon du lépp lu dagan nga jël dëgg la nag lii tekkiwul mooy bu jullit war oto bu baax tekkiwul bu am kër bu baax déedéet parce que li baax li ci kaw suuf sax nag moom ab jullit ko war a moom gis nga yéen ci yàlla wax ni àddina mooy kasab jullit di àjjana yéefar xam nga àjjana yéefar mooy sa yéen alahum amalakum mooy koo xam ne yow yow daanaka moom li ñu naan laa zalma baadal kufri yow amul benn frontière lu la neex def waaye jullit bi nag mi ngi ci kaso léegi nag xam nga problème bi mooy. ki nekk ci kaso bi léeg-léeg nga gis ko mu nekk ci yëf yu neex ndax jullit bu am alal ki nekk ci àjjana bi léeg-léeg nga seen yéefar bu wala kaana xadis boobu alxaafis ibnu xajar moo ko firi firi mu kéemtaane benn bis dafa war baxlaam ci biir misra ndoo ngay topp ko di jàng muy dem benn juif daal di koy dab teelaabu baxla ji berkel la ji ni ko waaw yow yéen dégg naa seen yonent nee na àddina bii mooy àjjana yi yéefar di kaso jullit man xoolal ni ma war a kaana fi ne maa ngi nii man dara amul te man yëngal la man ana sama àjjana ji yow mii xoolal yow fi ne sañu matin bu rëy bii sa bax la ji nga war a ndong yaa ngi nii topp la yow ana sa kaso bi alxaafis ibn xajar ni ko man de bu dee nar naa dem àjjana la may xaar ca àjjana de nam xéewale ak nam mel ci kaso laa nekk moo tax gaaw dee dem damay arrangé kon maa ngi ci kaso mu ne ko waa man nag mu ne ko yow de la lay xaar ci mbugalum yàlla ma nam mettee boo ko xamoon yaa ngi ci àjjana toog bañ a dee moo lay gën a arrangé xadis bi wax ji ci alxaafis ibn xajar wax gisuma keneen ku wax wax ju ko jege juj ji ni mel ci borom xam-xam yi ngir xool xadis bi ni mu tekkee ko ni mu leeree dindi lënt bi nekkoon foofu yëpp kon am na ñoo xam ne yàlla moo leen taaral taaru addina suñu borom mu ne fa hum yaamahuun ñuy kànni kànni topp alal ci ndeysaan jàpp ni moom lépp ala la koy réglé maa xam ngeen ne am na yenn xeeti feebar yoo xam ne borom bi du ko teg baadoo la est-ce que xam ngeen loolu mbaa lu néew un pour cent baadoo la la ko yàlla teg un pour cent xam ngeen un pour cent moom vraiment du dara gis nga am na yenn xeeti feebar yoo xam ne moo tax gis nga yàlla ni mu séddalee wallahi farda bima qasama allahu laka ya abdallah takun aghna nas am na yenn xeeti feebar yoo xam ne yàlla du ko teg mbaa doole mukk mbaa un pour cent la ko koy teg gis nga am na ñoo xam ne suñu ndoxum teen mii buñ ci naanoon seen biir yi day daw tey sénégalais lañ gis nga am na ñoo xam ne sa dëxin gii ngay lekk buñ ko lekkoon sa waay dañuy feebar gis nga am na koo xam ne fi ne salte bii nga romb ñii te defoo say bakkan nooyi ko ñoom buñ ko romboon léegi une semaine dinañ ko tëddi hôpital yow koy santal yàlla li la yàlla defal ay milliards nga yore yaa ngi énergie parce que yàlla ci boppam du la xañ alal xañ la diina xañ lay pexe yàlla day séddale nag ni muy séddale day jox kii lii comme ni ko mbokk bi doon leeralee dem Ibrahim jazakallahu xayran yàlla li muy séddalee mooy kii day ëpp nit ñi xam-xam kii ëpp nit ñi xel kii ëpp nit ñi technique kii ëpp nit ñi alal kii gën a muus ñee kii gën a teey kii gën a ëppal kii gën a lee noonu la yàlla séddalee nit ñi wa fawqa kulli zi ilmin alim ni ki noonu tamit ci alal suñu borom ne ulaayika ñooñu ngay gis nag jëru ñooñee de lahum wala ulaayika ñooñu alladina mooy ñi nga xam ne lahum ñeel na leen suuul adab mbugal mu métt mbugal mu ñaaw alaxira ah wa hum ñoom de fil axira ci alaxira je humul axsaruuna mooy ñi nga xam ne ñooy gën a perte humul xaasiruuna bokkut ak humul axsaruun humul xaasiruuna mooy ñiy perte humul axsaruuna mooy ñi gën a perte humul axsaruun min afal tafdil comme comme afal tafdil boobu maanaam mooy ñi nga xam ni ñooy gën a perte àllaaxira parce que yàlla dana leen yee kaay leen ñu ñëw luñ fi am sunu borom ni dara lu tax sunu borom ni adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha puus leen mooy seen li ngeen doon noos noosee ngeen ko ci kaw suuf puus leen fii moo tax mbokk yi kenn ku nekk ci ñun na xam ne li ko yàlla jox ci ay xéewal na ko doyloo amaan na bu fekkee da ngay yuutu lu ko gën a rëy mbaa duñ compati xéewali àllaaxira jox la ko fii est ce que loolu gënal na la déedéet wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun farda bima qasama allahu laka takun aghna nas sunu borom ne wa innaka yow Muhammad day la tulaqa alquran yaa ngi jokkoo yaa ngi jët jëlee alquran yaa ngi jotee alquran ji min la dun ci bàyyikoo ci koo xam ni xakiim ku xereñ la alim ku xam la kooku mooy yàlla lii sunu borom dafay dëfal xelul yonente bi salaa sallam daf koy dalal xam nga yàlla nee na ko walaw la an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila bu doon yàlla daf laa dëgëral xaw tuuti kon rek nga tarxiis la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne ko su duloon ak maa la dëgëral nga tarxiis waa keneen ko dul yonent bi nag kon loolu mooy tax nga yëg ni saba muy sax bis bu nekk war nga koo ñaan lu ëpp fukki yoon ndax yaa ko gën a aajoo ñëpp yàlla dalal xol yoon sa salam ni ko yow kat yaa ngi jotee alquran ji min la doon ci koo xam ne xakiim ku xereñ la waaye alim ku xam la bokk na ci xereñam gi moom sunu borom mooy def def yi ni mu ko defee defi ko xereñ dëgg la taw fam war a tawee saxal ñax fam ko war a saxee def guddi fam ko baaxee def bëccëg fam ko baaxee ci li doomu aadama yépp bu ne fam ko defee mooy xereñ dinaa wax mbokk yi ma ne leen yëkkatil benn cër rek nga ni bii daal laa bëgg rek nañ ko démonté seet feneen fu ñu ko monté ci yaram bi dama ni foo ko def nit ki du ko jàpp benn cër rek na di nopp na di bët na di tànk dama ni cër boo démonté laa nga ni damaa bëgg ñu essayé jéem ba xam dina jekk feneen wallahi foo ko def du fa jekk loolu mooy wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi almasir ah xalaqa al insana fi ahsani taqwim kon ku xereñ la mu sunu borom ci ay def-def xakiim gis nga xereñ gi moo tax xam ngeen ne yàlla subhanahu wa taala bu jëlee ponkal mu doy ni nag ah béjjënam yi gudd yooyu ak dooleem ju bari jooju lépp dox ah benn waaju sew raag géñ mën a ñëw ba nax ko tël ko ni ko bàpp mu jaaxaan ah kooku yàllaa ko jàpp de yàllaa ko jox lum xel xekk ma jaa tax li dañ koy soxla moo tax sunu borom xekk ma ji tax mu jox ko amul xel ponkal mu doy ni fas nga xam ne ñu bëgg am doole sax nee nañ dañuy lekk fas ndax bëgg am doole ak deret ju bari ah ab waaju tuuti ñëw ngalaab ko di ko biccar ñi fu mu nekk di karawaate yi dóor xekk ma ja ko joxut xel a tax gis nga de ila axirihi doomu aadama mi gën a tuuti ci ay technique am li ne ci kaw jaww ji parce que huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamia lii rek la waaye bu ñu woon loolu du jàppandi sunu borom wàcc loolu dugal ñun na ci xisab Moussa alayhi salaam Moussa borom saari jàmbur yi xam ngeen ni Moussa moom sunu borom tuddeewu kow saar waaye xaw tuuti kon ma ne am naw saar ndax Moussa saaru jàmbur woo mu dugg defe ne dem ngeen suratu Taaha bu ngeen fa jógee ñëwaat suratu Shuara bi ñu mujjee tafsir yaakaar naa ne lu bari lu may wax fii dama koy tënk jàll parce que waxoon naa ko allahuma lu dul loo xam ne yees na ci xisab Moussa alayhi salaam Moussa yonent yàlla la woon bu kéemtaane ci biir yonent yi ndax Moussa kat xam ngeen ni ku ràññeeku woon la ci yonent yi ñu koy laaj fit wi nag ñàmbaate gi ngëm yàlla gi bëgg yàlla gi foo ko nag rek romb na ko Moussa moom fit wi defe naa xadis boobu ma leen fi nitaloon gisal ngeen ko yàlla subhanahu wa ta'ala dafa yebal malakul mawti ni ko demal nga rey Moussa demal nga faat Moussa malaakal mawti ñëw di faat ci Moussa rek Moussa xacc koros rek ni ko ko tayyi ci bët bi malaaka mi dem ni suñu borom yebal nga ma ci jaam boo xam ni dee rek la bañ sunu borom ni malaaka mi demal nee ko waaw bu dee daa bëgg gudd fan na jël loxo mu teg ko ci kaw derop nag ñu wàññi pepp kawar ya nga xam ne loxo ba nëpp na ko ñaata la loola xalaat na ëpp ñaari junni de wala ay junni de mu ne ko na dund loolu ci ayaat may naa ko ko ba mu di koy wax ko Moussa Moussa ne ko après mu ne ko après xanaa dee mu ne ko bu fekkee après dee ci topp kay naa ko def benn yoon mu jeex Moussa alayhi salaam ku amoon njàmbaarte la amu fit am gëm yàlla ndax wa kaana inda allahi wajiha gis nga Moussa borom bi ku ko fonk lool la ndax aayat yi nga xam ne mooy wane ngëneeli Moussa ci biir alquran moo koy wane te it nag mbokk yi Moussa war nañ koo ñaanal arrangé nañu de mbaa xam ngeen ni suñu julli juróom yii li tax mu nekk julli juróom ginnaaw ba ko suñu borom dogalee Moussa la de juróom fukki julli la woon cinquante prières nga xam ne daanaka su doon loolu la ni yàlla wàcc moom mooy jëru kenn kenn di ubbi liggéeyukaay moom da ngay xëy di julli ba géej nga tëdd segam di nga mën a tëdd sax laa xoolal juróom julli yi ñu mu diitee juróom fukki julli maanaam daal lu ñu tudde tisbaar takkusaan timis gee fajar ngay lim di dem rek di ba mat juróom fukk ba Moussa rombee yonent saa salaam yonent bi romb Moussa Moussa ni ko waaw lu lu xew luñ la jox mu ni ko juróom fukki julli mu ni ko yoo dëppal lii moom boo demee gars yi duñ ko def yonent bi dem suñu borom teggi cas lëf mu dikkaat mu xool Moussa ni ko di même ba léegi lii duñ ko man dellul mu wàññi ba mu ko defee ba ba muy ñetti yoon yonent bi ni ko wax dëgg yàlla delloo delluwaat gi nag rus naa ci Moussa mu ni ko même lii sax boo demee gars yi dañ koy sàggane te xoolal Moussa faatu na ay junni jus at ah Isa jaatu Muhammad doog a ñëw Moussa xam nañu de xaw ma kan moo ko wax ñun de waaye xam nañu bu baax alayhi salaam yéen yàlla Moussa sunu borom mu ni fàttalikul is jamono ja nga xam ne qaala dafa waxoon Moussa Moussa li ahlihi ñeel waa këram ni leen inni man Moussa kat aanastu naaran dama seen aw sawara dama genn mi ci sawara sa aatikum minha xaar leen ma fi ma andil leen bi xabarin ci xabaar aw wala boog aatikum ma andil leen bi shihaabin xabas ci aw jumu sawara ah aw jumu sawara laallakum tasqaluun ndax ngeen mën a jaar xew-xew bi kon aaya ji qissab Moussa mi ngi tàmbalee te ba ko yàlla yónnee gis ngeen ci suuratu Taaha ak suuratu Shuara bi Moussa alayhi salaam dawee génn Misra ngir dañ ko doon waaj a faat mu dem ba Madiana fekk fa góor gu baax ba ñii ni góor gu baax ba ñii ni mooy Shuayb sàmmal ko ay at lii dama koy junj ndax mi ngi ñëw ci suuratu Qasas insha allah dina nekk ci biir koor gi ci kàttanu suñu borom sàmmal ko ba mu may ko doom ci ñaari doom ya loolu lépp danañ ko gën a farafàcce ba mu demee bay ñibbi si ànd ak doom ja te loolu ba léegi mi ngi ñëw ci surtu xasas waaye comme ñëw na fi mat naa mboros jàll mu ñëw ba yegg ci àll bi tombeek muy taw sedd guy ba ñuy kof kofi mook soxna Moussa daal di réer ndax lëndëm na xamul fu mu jëm Moussa xamatul yoon bi mu ñëw ba ci digg àll bi mu réer te mi ngi ànd ak soxnaam arab yi ñoom bokk na ci li leen doon gindi mooy safara lu tax ndax fu safara tàkk rek mooy am na ko fa nekk te rawatina ñi ñi dañ ko doon def ngir am na ñu tabe ñoo xam dañ daal taal safara ngir ku leen seen nekk gan nga ñëw ñu dimbali la Moussa muy dama réer léegi da ngeen di lële may seen muy lerax lerax yi sawara la may nuru léegi da ngeen di toog ngir ma dem su ma demee benn ci ñaar yi bu ma am jël aatikum bi xabar mooy ma indi leen xabaar mooy ma gis kay taal ma wan ko mu wan ma yoon wi wala boog ma indi leen lu ngeen jaaroo ñaar yëpp nag Moussa am na ko waaye lam ko foogee woon lu ko gën la am la muy seen mooy lenax lenax yi alaama ibn abbas nee na Moussa da koo teg sawara waaye du sawara leer ak sunu borom nga la moo doon bérex béréxi ca tuuru tuuru Seyna léegi Moussa dafa réer di wuti ku ko gindi loolu mooy wan ne mbokk yi képp ku réer bu séenee ku ko mën a gindi na gaaw dem ca ndax gindeeku daal di koy dikkal Moussa dafa seen tàkki-tàkki sabar mu bëgg caa andil soxnaam ngir mu jaaw noonu la góor war a amee yërmande ci soxnaam soxna saa ngi naan kof kof kof kof kof kof ndax daa tàng daa daa sent bi shihabin qabatin laallakum taftalun ngir ngeen mën a jaaw jaaw kon soxna si mën naa yónni jëkkër ji mu dem lépp nag na ànd ak respect ndax moo ko yónni fi mu ne nii ci ku toll ni Moussa kalimullah Moussa alayhi salaam falamma jaaha bi mu dikkee ba jub xur wi nuudi yàlla daal dégg ñu woo ko ñu woote ni am